salaamaaleykum. alaykum salaam salam. lay nuyu. lay fay bu baax baax di fay télé voilà képp Dak Medina nuyu. maa ngi fay Dak medina di gën a bokk si ñoom itam. Uh-huh. jaajëf. Euh, lii benn projet artistique la boo xamante dañ ko insérer dans un projet purement artistique et sociétal ça veut dire nan lañuy ñuy génnee ci si biir kër yi def ko ci mbedd bi bokk ko ak ñëpp comme aar liko taxa tax tu vois moy nit yi moy voilà yes moy nit yi tu vois ci forme bobu rek lañ leen koy wat xol li gëna a jege nit itam ñu jéem a itam ci loolu. Non, ça, c'est c'est pas une journée, c'est un processus. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la restitution. Moi, xew ci aussi Tambalé euh euh, euh, euh euh, nekkal nii tu vois mbir mi li si làqu yëpp mooy saxal garab waaw projet bi li si làqu yëpp mooy saxal garab embellissement des maisons tu vois loolu yëpp prétexte la rek voilà pour ñu comprendre garab lan lay jëriñ itam si dëkk garab lan lay jëriñ itam si réew non Océanium moo jël responsabilité couvrir tout ce qui est plantation lépp luy garab waa Océanium moo ñu moo ko couvrir voilà donc océan Océanium loolu moom mooy seen liggéey

pour ñu mëna jaxaso itam ak yeneen nit yi xamni art du pour yëfu tubaab kese art pour yëfu nit ku ñuul la yëfu tubaab pour nit la dal yëfu nit la alalu nit la donc but bi dañ koy delloowaat nit ci delloo biñ koy delloo motax nga gis fi ay nit yu weex nga gis fi ay nit yu ñuul nga gis fi ay xale gis fi ay pël fuuta gis fi ay nar gis fi tu vois tous ces trucs là non xam nga ku ci nek mu ngi koy def si sa façon mais moi l'appel que que je donne mooy que la Médina ñu poursuivre le poursuivre projet c'est juste une base Pour nous fixer, tu vois après quand nous ci visité, bi nga visiter ko di nga ressentir parce que toutes les façades de la maison sont en couleur tu vois moi la plupart de nos façades de maison on les a peints en couleur voilà donc loolu que mooy loo xamante ni Je suis koy ñaan ci Médina Médina que projet bi ñoom nañ ko approprier wu jël ko moom ñoom itam mu doon seen ay projet parce que ñun duñ si dara xam nga un projet et une idée bës bu xalaat bi demee ba dugg si biir nit yi ça devient un projet donc instant bi juddu na doon projet projet kenn moomu ko voilà ku ko approprier wu yow yaa ko moom. non di gërëm Médina di gërëm sama mbokk yi di gërëm ñi jàppale itam yëpp si affaire bi ah, waaw di jàppale di gërëm itam Dak Medina itam bu baax ci top bi top tous les activités qui se passent à la Medina voilà mon message le plus fort fini tollu ni moy ce projet là nañ ko jéem approprier wu ñun ñëpp nañ ko approprier parce que c'est c'est un truc qui est pour nit yi la li ñu bokk mooy mbedd bi yow seen bir kër yow la ko euh, concerné mais mbedd bi nu mu la concerner non la ma concerner non la concerner kenen mooy mbedd bi nan lañ koy embellir ba mu mel ni tey sunu salon tu vois mooy voilà si si si cadre boobu mooy loo xamante ni moom laay gën a suuxat nit yi xam mbedd bi ñun ñëpp ñoo ko bokk dëkk boo dem bu ñu ne dëkk bi rafet na mbedd bee rafet du biir kër yi du dara mbedd bi rek a rafet donc ñun itam bu ñu góor góorloo war nañu mën a defar sunu mbedd sans autant attendre que ce soit les, les, politiques, que ça, on n'attend pas. Voilà, ne pas voilà mais maa ngi leen di fay waa Dak Médina di rafetlu encore seen liggéey parce que gis naa ni boobu ba léegi bàyyiwu leen benn yoon yéen a ngi ci affaire bi heure bu ñuy def lu concerne Médina yéen a ngi taxaw taxawaay bu am solo di jéem a gëstu di jéem a xam ci Médina bi et loolu lu jar a encouragé la. waaw ah, tey ñu gis ni li Seexaat def indi ko biir Médina rue 31 tey la moo doon seen xalaat. waaw ñu ngi koy rafetlu mais ñu ngi rafetlu aussi constance su Cheikha donc depuis lors euh, euh, euh, musul teggi est ci milieu bi environnement bi musu ci teggi toujours mi ngi fexe di di Sam son milieu donc bu du koñ bi mu dëkk mais dans tout toute la Médina mi ngi teex fu guddeeg bëccëg suba ngoon di jéem utiliser les objets yi ñu lancer dans la rue noonu diko ko embellir ba mu doon mujjé nek euh, décoration bo xamni da fay rendre euh, l'habitabilité vraiment très très très correct quoi en en général. donc man en tant que président ASC bi nga xamni fi la li xewé maa ngi ciy kontaan lol lol lool weer ba lañu génn amna ben mouvement bu nek fi ci ginnaaw. bu doon def ay reboisement ak set setal ma rafetlu won ko trop ba demandé won sax ñu fexé ñu amal len appui bu deuguer donc tay ji ni ci continuité bobu aussi lañuy ñëw encourager Cheikha di soutenir di wax ni lii muy def ni xeyna mom mo ci nek en exergue ni mais medina bi yeb lako defal en réalité parce que tay ji nak xam nga comme on dit hein ku nek sa kër nga yor di nettoyer mais mbedd mi nga xamni ñun ñoko bok ku nek war nga fexé ba Nous euh, garder ko dans dans une bonne harmonie nit ñi nekk ci jàmm di dund ci et qui respirer la la belle vie en fait waaw mu gën a rafet masha'allah. allah ñi daal kontaan nañ trop ci Cheikha di wax ne initiative yu mel nii war baril et que vraiment c'est salutaire franchement waaw di ñaan les autorités yi nga xam ñoo ŋànk Medina, ñu appuyer

adapté ko Médina ci benn parcours ci biir parcours bi nag boole nañ ci ñëpp parce que set setalu ñetti semaine ay xale yu ndaw ñoo ko def rafetal koñ bi taaral koñ bi seen xel dem ci yërmande ak ñi nga xam ne ay mag lañu woon nefi muy euh, Traoré secrétaire perpétuel muy Jowakam muy Koné ñoo xam ni fii ci kër gi dañ fi am racine parce que fii mooy kër a Ababacar Sadiq Traoré moom mi nga xam ne mooy le roi de la Médina comme ni mu tuddee boppam ñu ngi koy nuyu.

donc lii nag soo amee Médina dañ ci am euh, fierté parce que fii di espace Médina euh, bërëb la boo xam ni kuy artiste Sénégal rek xam nga li muy tekki lu bare fii la jóge lu bare fii la xewe te am nañ yaakaar ni ak ñoom Cheikha ak ñi fi nekk yëpp leneen lu bare lu am njëriñ ci biir Médina ak biir àddina dina jóge fii ci espace Médina